rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق الناس الحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد mbokki jullit ñi gannaaw buñ sant yàlla julli ci yonentam sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ànd ak yéen ba léegi fi ci téere boobu nga xam ne mooy leeral wax yàlla ji te Mawlana Cheikh Ibrahim firiku euh, jàngoon nañ nag ba agsi si baqara ba ci xitaan bi ba ñu ngi woon ci finma suratul baqara nga xam ne am na ay ngëneel yu bëri yu ci ne képp koo xam ne yaa ngi tëdd jàng ko dana la musal da ci jàng ñu ne képp koo xam ne jàng nga yàlla dana faar say bàkkaar yépp ñu ne képp koo xam ne jàng nga yàlla dana ubbi sa wërsëg mu nekk finma suwar boo xam ne bu bëri ngëneen la bu bëri njëriñ la képp koo xam ne jàng nga ko ci lépp loo ragal yàlla dana la musal ci li nga ragal noonu ñu firi woon ba si fi ñu tolloon mooy amana rasulu amana gëm na kan rasulu yonantu ban yonantu muhammad sallallahu alayhi wa sallam rasulu yu bëri nañ waaye yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa mooy ki nga xam ne mooy yontu mujj yàlla yu nit Muhammadu rasulullahi ñëw na feneen moo tax yàlla nee na yonent bi gëm na boppam gëm na li nga xam ne moom la yàlla wàccee ci moom te muy alquran karim amana gëm na rasul yonentu te mooy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ima ca la nga xam ne unzila wasaleef na ko ilayhi jëm ci moom min rabbihi mu tukkee ci boromam te mooy alquran karim wal mu'minuuna jullit ñi nag ba léegi ñoom it ñëpp gëm nañ kullum minhum képp ci ñoom gëm na amal gëm na billaahi ci yàlla gëmee noonu la noonu lañ gëmee ñoom moo tax ñu mën leen tuddee wal mu'minuuna gëm nañ leen gëm nañ yàlla ne moo leen bind wa malaayikati yi gëm nañ ne malaaka tamit ay ndaw yàlla lañ yàlla moo leen yónni te li wax ci ñoom dëgg la laa yaasuna allaha maa amaru wa yafaaluna maa yumaruna malaaka yi mooy mbindaafoon yi nga xam ne mënuñoo mooy yàlla te lu leen yàlla digal rek ñu daal di ko def wa kutubihi te gëm nañ téere yëpp yàlla moo ko wàccee mu jóge ci yoon ci yàlla muhammad sallallahu alayhi waaye mboole mboolem yonent boo xam ne yàlla mas na ko yónni jox na ko téere waaye téere yooyu yëpp julli ñi gëm nañ wa rusul yi ak moo tax soo gëmee yonent yàlla moom sallallahu alayhi wasallam weddi benn yonent rek sa ngëm du mat moo tax ñu ne ku gëm mooy ki nga xam ne gëm na yàlla gëm malaaka yi weddiwul malaaka yi ndax am na ñoo xam ne seen problème foofu la jógee am na ñoo xam ne bi am bi bi ñu amee problème ak jibril te jibril ci malaaka yi la yàlla def ne gannaaw ñoom dañoo noonoo jibril ma seen noonu la inna allah abdu li yàlla def ne leen noonu ndax liñ noonoo jibril moo tax yàlla def leen noonu kon da ngay gëm yëpp gëm yonent yi gëm téere ñooñu nag seen parole mooy lan mooy laa nufarriqu duñ tàqale bayna ahadin diggante kenn ñu rusuli ci yonent bul mës man naa yonent bi laa gëm Isa baaxu Moussa baaxu déedéet da ngay da ngay gëm ñëpp ndax yàlla moo ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wattabi millata Ibrahima hanifan toppal diine yonent yàlla Ibrahima sharaa yàlla moo ne ko li ma li nga xam ne sharia bi ma la jox maa wasaa bi nuuxun wallazi awhaynaa ilayka wa maa wasaynaa bi Ibrahima wa Moussa wa Isa li ma la jox laa joxoon mboolem yonent yi waaye loi bi moom seen loi moom kenn du ko appliqué seen waaye nag gëm leen respecté leen day matal ak ngëm laa nufarriqu bayna ahadin min rusuli ci gëm ñenn bàyyi ñenn doo ko def da gëm ñëpp ndax yahud ak nasaara loolu lañ def yahud daf ne lépp loo xam ne jógewul ci ñoom rek du dara te gëmuñ wa qaalat yahudu laysat nasaara ala shay wa qaalat nasara laysat al yahud ala shay kon kon quluba tamrin yahud seen wax leer na kama wajadna abaana wa inna ci la ñuy continuer nasara lañ wax yàlla nag ne xeet bu leen wax loolu yéen kañ wax dégg nañ dégg ak topp dégg nañ te dañ appliqué wa ataana te danañ topp dégg nañ te danañ topp ba faraanaka nag ñu ngi lay ñaan yow yàlla nga jéggal ñu rabbanaa yow borom suñu way léegi ci yow almasiihu la doon la delluwaay nee nañ aaya bi mu bi mu ah, ñu bëri ci jullit ñi dañoo commencé sikk ndax dafa dafa tar ñoom ñu ne ko waaw yàlla luñ xalaat rek. yàlla bind ñu ci bàkkaar métti na métti na de yàlla daal di jàng a jàngo jàng jàngo ne leen laa yukallifu bakkan bi sëfuma ko lu may lu attan laa yukallifu toggul allahu yàlla nafsan benn bakkan illaa wusahaa lu may dem attan rek laa ñeel na ko maa kasabat lam sàkku ci yiw min xayri wa war na ca kawam ci mag mag mag te sebet lam sàkk min charin ci lu bon su sàkkoo lu baax lu baax loolu ñaan su sàkkoo lu bon tim lu bon loolu ñaan na ko laa tu'aaxisnaa bul ñu jàpp ci mbugal yow yàlla bul ñu mbugal inna siinaa liñ fàtte a waxtaanaa wala ñu juum ci li nga xam ne juum nañ ci ko liñ fàtte jégal ñu kon balaa mi ñuy jàngal ñaan laa tuwaaxidnaa in nasiinaa wa axtaanaa rabbanaa yow borom suñu wala taxmil wala taxmil bul bul en alayna ci ñun ci suñ kaw isran ndir mu diis moo xam ne ñun duñ ko mën a enu kamaa xamaltawu comme nanga ko ene woon ala ladina ca ñi nga xam ne min qablinaa aji nekk li ci njëkk si ñun yu diis yi nga xam ne da nga ko daan en xëy du njëkk ya ñu ñaan bu ko en ndax atuñu gis buñ daan tuub dañuy rey seen bopp yooyu yëpp ay xel la yoo xam ne di génne ci seen alal way xaraaju rubu maalin seen rubu maal dañ koy génne loolu yëpp yàlla tegu ko xeet yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi na ci bokk na ci seen yére bu takkaan sobe ñoom dañuy dagg balaas ba wala ñu ñàkk yére ñun nag dañuy fóot rek yooyu diis yooyu yëpp nag yàlla tegu ko xeet yonent bi sallallahu alayhi rabbanaa yow suñu wala tuhammilnaa bul ñu yàlla boo ñu en maa laa taaqata loolu du kat loolu du kattan loolu ci loolu bul ñu en mukk loo xam ne attanu ko ci ay takaalif ak balaa yoo xam ne attanu ko bul ñu indi luwaa boo xam ne bu ñëwee si ñun duñ ko mën ñu ngi la koy ñaan bul ñu ko defal waafu yàlla nga jégal am naa ci ñun yàlla nga faar mboolem bàkkaar yi defoon wax fiir yàlla nga jéggale naa ñeel ñu war xam na yàlla ñu yërëm ci sa yërmaane yi te mooy njéggal anta yow mawlaanaa yaay ji méngoo suñ mbur te yaay sang suñu fansur naa yàlla ñu dimbale alal xaw mi ci nit ñi alkaafirina ñe di way weddi ci taxawal ñu ñu am lay wér dominé bu ñuy xeex ak ñoom ndax bokk na ci mbiri sang mu dimbale ki nga xam ne mooy jaanam te ñun amul benn wéeruwaay boo xam ne mooy yow nañ ne aaya bi mu لما نزل بهذه الآية فقرأها صلى الله عليه وسلم قيل له عقب كل كلمة قد فعلت نن آية بيم واتي يونس بي صلى الله عليه وسلم بار بوم واخ gis yàlla tontu ko ne ko nangu naa na ko def naa ko qad faaltu mooy ne aaya bi euh, feema suratu baqara aaya nangu ñaan la aaya bi wér la ne képp koo xam ne am na soxla jël ko ñaan ci yàlla dana ko nangu loolu moo nekkoon leçon bi tey euh, di wax ne suratul baqara yi noonu kon jeex na ci jàmm incha allah ñu ngi waaj a dugg ci suratu al imran ñaan yàlla mu may ñu ñu mottali kaayam bi comme ni ñu ko commencé asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي أن